investigation criminelle wolo ay naata naataangoom di woote ci dal gis ne mbir yi xuppe rek ca lalu ca du tax ñu wàññi ko ci yoon wënu jël. wàllu xibaar it bokk na ci élection 2012 Abdoulaye Wade ak dogal bu mu jël démb jëm ci fal ministre chargé des élections Cheikh Gueye moo nekkoon directeur général des élections opposition bi nag dalul seenam xel. résultat yi njëkk yu BFM baa ngay waddandi lanu cëg seetlu euh, ci wàllu yooyu résultat mooy ak mbaax. programme national investissement ñeel mbay mi Sénégal ñaari junniy milliards di ci dem diréb juróomi at ci lay doon la ko tax a jóg xeex ndóol naka noon it yokkute am ci réew mi doon nañ ci amalam ndaje démb Abdoulaye Diop ci technique bi. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina du 15 angle Corniche immeuble El Hadj Eli Mandour ñu dooree xibaar yi lu ñeel waa mouvement Y en a kenn ci ñoom caat dafa mujj fanaan commissariat central Ndakaaru gannaaw ba ko division investigation criminelle wooloo démb ci ngoon moom nag euh, ñi nga xamante ni ñooy mouvement bi euh, di waa Y ñu ngi woo dal seen ak ñooñ waaye nag euh, duñu nangu benn yoon ñu ne xoqatal gi jaar fa daanu wéyal seen i yëngu reportage El Hadj Ndiogou Diène bi ci li nga xamante ni kon mooy génn ko caat ca dikk ak yóbboom ca commissariat central ci bi une heure du matin dese juróom ñetti minutes la caat génn ñu war ko yóbbu ca commissariat central moom nag ñu ngi ko dugal ci benn L200 bu weex bu fees dell ki policier ñooñoom yi jot ñu ko sax gis ndaxte dañ ko sëggaloon moom rappeur boobu bokk ci mouvement Y a marre ñu téye ko gannaaw la juróom-ñaari waxtu yu ñu ko déglu ci dikk Fou Malade daal di ciy woo ñëpp ñu fa teewoon ngir jàppale leen ñu ànd ak dal gaay ku nekk na nga ñibbi sa gàlle ku nekk na nga ñibbi sa gàlle calmement a marre ne bu dee détention rek bu dee garde à vue la mënul weesu 48 heures. teewul ñi nga xamante ne ñoo sopp Y'en ak ñi ci bokk ñëpp nee nañu xeex moom dañ ko fas yéene wéyal ba fu mu yem. état bi ñoo nar a ne nekk di xeex xëccantoox parce que état bu demee bay xëccoo jeunesse am loolu dootul état tuñ ko pare nañu pour dem ñoom ba fu mu fuñ ko bëggee rek fu état bi fu mu dem rek ñu fekk si leen fa. ñi ànd ak Y'en gis ne li xew yëpp du dara lu may xoqatal gu leen nguur gi di xoqatal waaye nee loolu duñ ko nangu benn yoon te du jàll. voilà Ndiogou Diène wax nga ko ak xuppee rek la ko jàppe ñoom waa mouvement Y'en a marre waaye du tax ñu wàññi ko ci yoon wu nu jël boobaak léegi coordonnateur kuréel gi Fadel Barro Daouda Diouf. jógee nañ fi léegi bu BAG yóbbu ko commissariat central amul benn xibaar boo xam ne jëwee nañ ko foofu loolu ñu bëggee dugg ci biir BAG bi pour laaj leen ce qui se ñu boo xam ne ñoo revers nous ñu lii moo tax ñu wala lii moo tax ñu amul benn xibaar rotuutawut foofu jël ko daal génnee ko ci oto bi accéléré vitesse ñëw biir bi dem commissariat central yéen léegi lu leen jàngat ci euh, maanaam li ñu ko yóbbu commissariat central waaw xam nga xam nga bu dee nekk en face lu ñuy woowee un régime aux abois nga gis ne ñooy def lu nekk dañuy mel ni kuy jafandu ku nekk ci ndox di jàpp fu nekk dañuy jafandu parce que pour man bu xalaatoon tuuti dinañ xam ne xam ne yoon ñu koy jàpp daf fekk ñu nekkoon ci campagne bu am solo bu ñuy wooyee daas fanaanal di pousse xale yi ñu inscrire massivement ci liste électorale yi di leen soññ di leen wan ne réew mi seen réew la te bu leen nangu kenn di leen ko yàqal bu leen nangu di banque seen loxo oh. ba ñeneen ñu ndaw jël ko bëgg a dëdd dëdd dañu bëgg ñu dëddu vrai xeex bi nga xam ne mooy dem jox askan bi wax leen ne mouvement bu yanamaar yi mouvement jàmm ko tax a jóg te mu yi man jàpp naa ne loolu moo tax ñun nekk lii lan njort a ne xëy na moom lañ koy doyee te xam naa ne suba dina nekk mobilisation bi ëpp li di nga parce que ñu bëri ñu lim téyewoon taxawu ko wan ko ne lii ni ñu bëgg la bëgg a teg ñu nag yaa askan yëpp ko bokk fajal Bakho bu mouvement Y'en a déglu gi nag ñeel caat bu mouvement Y'en a marre Mouhamadou Mbodj njiital forum civil rafet wu ko wàllu xuppe geek li nga xamante ni kon mooy nappee gi euh, lal mbir moome ndax moom jàpp na Mouhamadou Mbodj ne euh, mouvement Y'en a du mouvement bu dangereux euh, du gu àndeeg jéye ndax sàcc ñu alalu Sénégal reyuñ fi it kenn Mouhamed Sam président jeunesse wadiste moom la mu ñaaw lu mooy doxalinu caat mu ne ak it responsable opposition yi koy ciy jàppale ndax dafay ak wekk ak yëg ñeel njiit réew mi Abdoulaye juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute. ak RFM kumpa tàggoog nag yéen. wootey 2012 kanu dénk yooyee woote Cheikh Gueye la mooy léegi ministre chargé des élections moom mi nekkoon ba fii directeur général des élections wutu na fa Ousmane Ngom mu mel ni Abdoulaye Wade na ma ko ni waxee woon samedi 23 juillet defe na ko ni génne ci loxoy Ousmane Ngom euh, yorin ak organisé wu élection fii ci Sénégal dalalul nag xelu opposition bi danoo gis ne benn waroon na caa yëgu ñaar mu jël ko farewul fenn mooy gis-gisu secrétaire général bu parti socialiste Ousmane Tanor Dieng fokk euh, ki muy jël. tant que ñun wóoluwuñ ko kooku euh, nomination boobu du am valeur foog mu seet koo xam ne ñun wóolu nañ ko jàpp nañ ne ku ku ndeyu siix la ku indépendant ku neutre la mais su tegee koo xam ne pour ñun indépendant wu neutre ñu kooku ñun duñ d'accord ci nomination foog ñu réunir ba xam waxtaane ko jël décision boo xam ne ñun ñëpp ñoo jël décision bi. xëy na yéen euh, doyu leen xëy na am xel ñaar ci neutralité Cheikh Gueye. waaw li li gënoon a baax daal mooy ñu weccoo xalaat ba xam ndax ki jël ñëpp d'accord nañ ci ku la ak ñu xaar ba nga xam ne waa Benno ak ñëpp waxtaan nañ ci mais di gaawant di jël koo xam ne laajuñ suñu xalaat kooku doonul li nga xam ne moo ñu gënal. Ousmane Tanor Dieng njiital mouvement li jot jot na it Cheikh Tidiane Gadio noonu la gisee ak yëgoo ko gënaloon ci mbir yi lu may jël joow sa wet gi yow ket Ousmane ñu déglu Cheikh Tidiane Gadio ak El Hadj Ndiogu Dieng. kenn neewuloon président Wade dañu bëgg nga jël keneen nommé ko ministre des élections liñ ko wax mooy mbir moomu élection da ngay jël personnalité buñ ne personnalité neutre wala da xam ne ñëpp d' accord mais doo dem tànn ku la neex ñëw imposer encore nit ñi date leen créer ministère des élections mbir mi daal dafa mel ne ba léegi comprendre li leen nit ñi wax politique ñu moderne léegi ci gouvernance bu bees doo décider dara yow sa bopp da ngay euh, concerté woon nit ñi gouvernance bu bees concertation la laaj fii y a eu aucune concertation nekkaat na décision unilatérale quel que soit nag le mérite et la valeur de Cheikh Gueye ku ko xam xam ne c' est un grand expert des questions électorales mais encore moom la ñu tooñ mhm. mettre ko dans cette situation li ci des nag rawuli bët dinañ gis fan lañ jëm ak lii yëpp mais bu dee concession lañ bëggoon def ils ont fait une mauvaise ils l'ont mal fait parce que waroon nañ ko def si biir waxtaan ak concertation Cheikh Tidiane Gadio élection yi nag daa lu ko jiitu ngir mën caa bokk wax ci sa xalaat ak euh, taxawaay ak nga àndal mooy bindu d'abord bindu moomee euh, ci diwaanu Ndar commission ya askan waa nga fa teew rawatina ndaw ña pas-pas gu mat lanu ci wane ngir mën a bokk ci jongante 2012 waral sax ñenn ci ñoom di sàkku délai ba jëm ci fanweer ak benn fukki fan ci weeru sulet wi ñu daal di gën a yokk ab bi Mouhamed Nabi Sylla farlu ci ndaw yi ñëw ci lim yu tàkku ci commission inscription ci wàllub liste électorale yi ne ci dëkk bi dip Ndar kenn ku nekk bëgg bokk ci laaju ci wàllub wote yi Sénégal jëm. ñëw naa fi ay ba may ñëw moom fekk naa fi trentaine de personnes yi j'ai mon mot ci dëkk bi ni muy déroulé nii. dama ñëwoon pour inscrire pour carte électeur jotoon naa ko mais dafa réer. ñëwoon pour inscrire. ñu envoyé ñu jox ma certificat de perte ma dem ba police fekk naa fi ay nit 15 minutes 20 minutes laa fi def carte bi moom yaakaar naa moom la ñu mën a xeexee moom mooy suñu arme bu ñu defee nii fexe ba am kenn ku nekk fexe ba am am sa carte électeur léegi loolu ci ngay mën a téye toog xool nag nu def ba changer genre dund bi ñuy dund nii. yenn ci responsable politique yi nangu ni état bi ak parti yi ñoo deful seen waruwaay ngir tàggat askan wi ngir ñu mën a teel a bindu ji Omar Thioye di kenn ci responsable APR yaakaar ci dëkk bi di ndang xamle ni way ku jee politique bi dañu bàyyi woon seen loxo gannaaw ba ñuy toppatoo yu ñàkk solo yoo xam ni bindu ji ci wàllub liste yi tàggat ci ndaw yi moo ko ëppoon solo. nguur yi xamoon na ni dafa daan def campagne de ba ci rajo communautaire affaires yi ba ci télévision yeneen rajo yi nekk ci biir dëkk bi opposition bi aussi am na tam beneen foo xam ne donc divertir leen bàyyi leen ñu nekk di toppatoo yeneen wax te fekk élément essentiel bi moo doon fexe sensibiliser militants yi ba militants yi mën a inscrire ci liste électorale boo xoolee ci diwaanu Ndar premier trimestre janvier ba mars li ñu xool moo doon ñag lu dul ñaar téeméeri nit ak fanweer yooyu rek ñoo waroon inscrire léegi boo xoolee léegi bés bu nekk boo demee àll police nit ñi fàqe fu nekk wuti police ak commission inscription yi wane na ni élection 2012 yi askan wi nit ñi gën ci mën a bokk war nañu yokk datub inscription yi RFM ci Ndar Géej na Nabi la diwaanu Thiès it mbooloom commission ya foofee ci wàllu mbind mi askan waa ngay wutali fa ñoom fu mel ni Thiès Nord ña nga jamono ci junne ak juróom-ñett fukk juróom yu bindu mu mel ni kon ñaaxee gi foo forum civil ak mouvement Y'en a marre jóg tey am nay résultat Cheikh Anta Diop commune d' arrondissement bu Thiès Nord de daanaka nit ñi lim bi bindu yokku na président commission bi ne nag bés bu nekk dina jël lu toll ci fukk ak juróom ba ñaar fukki nit ñuy inscrire loolu de amul woon ci fan yi la ñu weesu Malick Maria. par rapport ak kii kii bu njëkk bi. nit ñi ñu ngi ñëw. parce que ñu ngi inscrire fukk ak juróom par bés. donc euh, ça va. Nord lu jëm nag euh, ci wàllu modification yi am na ci ay soppeeku bu baax a baax. ñu ngi ci junni inscription ak juróom-ñetti ci fukk ak ñaar donc 1082 modification ñaari téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñaar 292 changement de statut bariwul 29 la ñaari fukk ak ak juróom-ñeent. pour lu concerner fichier militaire inscription yi ñetti nit la modification. juróom benn nit changement de statut benn radiation yi amul jusque là amul forum civil section Thiès ñoom nag am def nañu ay jéego yu am solo ngir nag xirtal ak ñaax askan wi ngir ñu dem bindu ji ndaxte nee nañ ay citoyen lañ Lamine Thioban moom mooy yor lépp loo xam ne jëm na ci seen wàllu kaddu. ñu mën a leen jël itam seen i carte ak seen i carte d'identité yi nga xam ne ñu ngi ci commissariat yi ak seen carte électeurs yi nga xam ne aussi ñu ci commission électorale yi di nelaw te euh, nga xam naa ne na lu mat juróom fukki junniy carte réew mi bari na lool fii ci diwaanu Thiès commission yoo dem ndaw ñaa ngi ñëw ñu jàpp ne nag campagne bi nga xamante ni waa Y en ñoom ñoo ko doon amal mel na ni campagne boobu de jur na lu rëy fii ci diwaanu Thiès RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Ngéeñeen moom askan wa danoo dëddu wan ginnaaw commission ba nu fa yebal ngir ak mbindu ñeel wote yi la ko waral mooy danoo gisul ñu ne mandarga buy wane nii commission boobee buur ko yebal Mamadou Diop. ñaari nit yu jóge ci ndakaaru ñoo ñëw ngir bind ñi nga xam ne ñoo bëgg carte d'identité nationale waaye ñoom nag amuñu ñu de mission amuñu récépissé boo xam ne am na cachet kenn ci ñoom sol benn blouse bu bleu ñu bind ci ministère de l'intérieur direction de l'automatisation des fichiers loolu moo waral ñi nekk ci conseil rural bu Ngéeñeen ne mbir mi kat fraude moo ci lalu. Mor Gabi Diouf moo yoroon seen kàddu. li tax ñu jàpp ne càcc la aussi ku nekk xam na ne euh, récépissé boo ko joxee dafa war a am cachet ministère de l' intérieur yoruñu cachet ensuite mission bu jóg tegu ci yoon nar a dox njub da yor ordre de mission amuñu ordre de mission kon boog dañuy jàpp ne ñii ak càcc leen dara tax a jóg ak njub leen moo leen tax a jóg. li ñu décidé mooy population yi ñoo taxaw comme ñun suñuy autorité administrative muy préfet muy sous préfet nee nañ yëguñ seen yoon nekku ci ñu am suñ fulla ak fayda ñu remboursé yi nga xam ne nañ ko ci ku nekk remboursé ñu extrait de naissance. kii di Serigne Thiam nekk responsable libéral ci Nguéniène moom kat nee na ñaari nit ñooñu kii di Thérèse Koumba Diop di jëruñ diñ dëkk wàllu solidarité ak action sociale moo leen fi yebal. ñii samedi soir la ma ministre bi Thérèse Koumba Diop woo téléphone ne ma commission bi defar carte d'identité yi au niveau communautaire dina ñëw mu ngi ñëw léegi yow lan fi xam nang leen recevoir bi ñu leen laajee ñoom kat kenn bugg cee wax kan moo ko yebal fi nga xam ne moo nekk ci ngéeñeen. nous sommes tenus par le droit de réserve non par déclaration de l'affaire mais non comment. askan wi nga xam ne nag daanaka joxe woon nañ seen kaddu te mer bu futu ñuy ñaankat ñu delloo leen seen xaalis ñi nga xam ne ñoo autorité locale yi ñoom nee nañ lépp lu nekk ci ordinateur bi nañu ko faase waa gendarmerie bu Joal Fadiouth nag jot nañ leen woo ba ñu ñëw nag fas yéene jël ñaari nit ñooñu yóbbu leen ci Joal Fadiouth déglu leen ki doon jokkoo ak yéen fii ci Mbour Mamadou Diop ngir RFM jërëjëf Mamadou xët la bu yaa ñu jagleloon mbindu meeg tolluwaay li ci askan wi Sénégal Mbour Thiès Ndar RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. bi jaamu seen soxla. résultat BFM yi xam nañu ko ci centre yenn yu Sénégal Dakar loon koy door ak lycée Thierno Seydou des candidats proposés à l'admission au premier groupe. Numéro 1, Amsatou Ndiaye Ablefoli. Numéro Ababakar Mokhtar Anne. ci kaw étage président juré A. tiimu ay ndongo yu bari woote bi tax ñu bari di daanu mu métti lool ngir noppiloo ñi nga xamante ne amuñu seen examen ñeneen ñi moom mbégte lañu am Ndeye Khady Dramé ci la bokk. la première fois bi moom bu njëkk ma def ko. ma réussir ko de fils premier tour te yàlla du ca dugg. yaakaaroon nga di réussir. waaw yaakaaroon naa pas à pour cent mais quand même. ci jury téeméer ak fukk ak benn candidat jot nañu am seen examen ñeent fukk ak ñett dinañu def ñaareelu tour bi ca jury bi ca premier tour bi lu toll ci juróom-ñett fukki ak juróom-benn ñoo am seen examen ñeent fukk ak juróom-ñaar dinañu def ñaareelu tour bi résultat yi njiitu jury beeg rafetlu ko Marie Hélène Dione. jour bi bi ñu gisee notes yi vraiment xawoon nañu tiit tuuti yàlla def na daal résultat yi tane na daal. lan moo bi nag ci problème notu EPS yi la woon ak euh, numéro yi nga xamante ne toppalante wuñu ci liste yi looloo ñu retardé. toll na ci juróom fukki candidat yoo xam ne jotuñu def examen yi ndax nekkuñu fii ca lycée ba moom mbir mi jaxasoo lool ñii di yuuxu ndax dañu bégg ñeneen ñi. am mbetteel. jërëjëf Jo Mar woon wàllu xibaar ak RFM ba tey ak wér-gu-yaram askan wi jàngoroy Apollo nuyoo ndakaaru ci gox yenn yi ci wàllu ceetlu nag da ca am ñoo xam ne ñoom ñu ngi wéy di gëm ni bu Apollo mën nga caa def lu mel ni limon wala ndoxu géej ak yeneen loolee nag euh, sa bopp la docteur Boubacar Sarr xam le ni Apollo euh, nanguwul fajal sa bopp ku mu dal na nga ci ku ne xam nga lu xel nangu kon ay limon kii ndoxi géej ak yooyee mun na la indil jeneen ba yokk sax faf Apollo boobee ci yow wàllu mbay mi programme national investissement namm nañ ko Sénégal ñaari junni milliards di ci dem diirëb juróom ci at moom lañ doon waxtaanee démb ci ndaje leeral li jëw ni ju du denk mbay mi Xadim Gueye ak programme la bu ñu tëral ci juróomi at juin 2010 ko taxawaloon muy programme boo xam ne bi programme Sénégal la waaye dafa bokk ci programme réew yi CEDEAO yëpp CEDEAO moom moo tëral programme bu mag wax na nag réew mu nekk ci biir programme bu mag boobu nga bind li nga war a def ci juróomi at yi ci lu jëm ci mbay lu jëm ci càmm lu jëm ci nap lu jëm ci environnement lu jëm ci lépp lu nga xam ne lii dina tax ñu yokk bu baax a baax a baax li nit ñiy dunde muy programme bu rëy nag bu Sénégal ndax mi ngi toll ci ñaari junni milliards francs CFA 2000 milliards yooyu lii nguuru Sénégal moo koy def ci xaalis lii bailleur de fonds yi maanaam ñi nga xam ne ñooy indi alal ci réew mi du ñu jàppale ñoo koy def lii privé yi maanaam ñiy defal seen bopp ñiy jëlal seen bopp defal seen entreprise bopp ñoo koy def lii euh, producteurs yi ñoo koy def muy programme boo xam ne bi nag mi ngi dox ndax daa diggante daaw ak ren état bi dugal na ci lu bari bailleur de fonds yi aussi am nañu ci bari ñu dugal lu bari euh, fi mu ne nii agriculture rek diggante daaw ren am na lu toll ci juróomi projet yoo xam ne benn bu ci nekk. mi ngi toll ci dix milliards jëm vingt milliards yoo xam ne bailleurs de fonds yi ñoo ko indi. donc programme bu yaatu la bu rëy la boo xam ne bii liñ ci jublu mooy dund bi yokk bu baax ci Sénégal waaye itam ndóol wàññi ko bu baax. yokk koom-koomu réew mi réunion bi nag dañ ko doon def ngir waxtaan ci comité bi piloté programme bi koy yore comité boobu nag primature moo koy jiite. wàllu tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay ziar sëñ Cheikh maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye bisimilah dañ koy door rek wàllu basketball ak lu ñeel final euh, championnat ci wàllu góor ñi démb lañ ko doon amal nag ci ngoon foofu la ci stadium Marius Ndiaye diggante Douane ak ñi nga xamante ñoo di waa Université Gaston Berger Douane moo ko daan lu tolloog juróomi poñ daal di dox seen diggante Douane am lu tolloog juróom-ñaar fukki poñ ñi nga xamante ni ñoo di waa Université Gaston Berger du étudiant daal di am juróom benn fukki poñ ak euh, juróom ci jongante googu le nag ki nga xamante nag moom mooy tàggat ñi di waa AS Douane moom daal dina rafetlu ndam li donte sax métti woon na ci ñoom ñu déglu ko. UGB vraiment ay jàmbaar lañu ay ndaanaan lañu bon ils on sait on a mais finalement on est à l'usure je crois que ñoom dañ dem ba jeex bi ñu demee ba jeex ñun ci soog a agsi et ñu sante ko yàlla. sant ko yàlla on les félicite parce qu'ils sont très yàlla moo def ni que tey on a ñu daal di déglu bi yoon entraîneur Université Gaston Berger moom mi gis ni daal donte équipe am moo dirigé rencontre bi waaye ci mujjantal dañoo daal di nërmeelu ba tax na daal loolu indi leen boobule loraange ci final googule ñu déglu entraîneur Université Gaston Berger. li am ba des mooy ne ñun li ñu defoon mooy dañoo waroon ñëw pour gagner mais dem nañ gars yi di topp ci précipitation bi on a utilisé le temps mort lu nekk ci printemps bi gis nga ko on a eu raté quatre lancers francs c'est bi nga xam ne daf ñu doon loolu du defe en face nag une très grande équipe de la douane comme ni ma koy waxoon un bon banc un bon staff technique et ils sont suggérés et par moment les gosses ont douté moo tax gars yi dellusiwaat suñu gannaaw mais lii day tax ñu dellusiwaat gannaaw remettre en cause xoolaat suñu basket du dara loo xam ne perte nañ ko ci lii nag njàngat la boo xam ne beneen yoon ñun dinañ focaliser wu ko li ñu ci final googule daal dinañu siiwal ñaar ñu gën a xarañ ci saison bi di Ibrahima Meng bu AS Douanes ak Fatou Bintou Thiam bu Jaraaf ñoom bokk ñoo di roi ak ren ci atum 2011 gi samedi gi di ñëw nag la leen daal di sargal ci final coupe du Sénégal nar dox ci diggante Université Gaston Berger ak Saint-Louis Basket Club si suñu yeneen jotaay xibaar kon bokk di ngeen ci déglu kàddu yu njëkk yu. Ibrahima Meng di roi bu atum 2011 bu basketball bu Sénégal ñu daal di waxtaane wàllu bëre dóor ak combat diggante Elton ak Tafatine jàppaleen kon boog ab gindeeku dal na ci am ndax euh, dafa tàmbale woon am ay jafe-jafe la waral moo di ñaari programme foofule ci stade Demba Diop benn bi di làmb gi euh, foofule ci stade Demba Diop ñaareel bi di finale coupe du Sénégal ci stadium Maris Ndiaye diggante Douane ak UGB waaye gannaaw daal ba ñu toogee waxtaan daal nañ si indi ab gindeeku loolu itam di ngeen ci déglu kàddu Luc Nicolaï Enco euh, di Pape Faye si suñu yeneen jotaay xibaar Alaaji Asan ñu daal di ko jeexaleek lu ñel wàllu football ak wàccaay jongante xarito diggante Sénégal ak Maroc fukki fan ci weer août jàppale ne tey jii si suba gi kii di entraîneur national di Amara Traoré dina daal di siiwal liste joueurs yi nga xam ñoom la tabb ngir daal ñu daal teewe jongante xarit googu euh, jongante xaritu googu la jërëjëf sëñ Cheikh euh, lamb ni ko waxee ak waxtaan am na gindi ko am mu mel ni waxtaan la jiital ci lépp waaw waxtaan fu munti am rek euh, jàmm rek am maa la ko wax moo gën ay ak ñi nga xamante ni foo leen fekk ñoom foog nañ lépp dënn lañ koy Babacar Fall gis ne xajoon na feneen. mitingu PDS bi amoon keroog samedi musiba la jéeya la ci dundunu askan wi ci fànn yu bëri nag bi njëkk mooy million yi millions yu bëri yi nga xam ni jël nañ ko ci xaalis kon def ko ca bés boobu ngir rek dajaloo ci VDN gi di wane ni dama am yi nit PDS ak njiitam lay wadd jël xaalis bu bëree noonu di ko dépenser dépensé yu wu ñàkk kersa googa ndax jamono yi ñu jël xaalis boobu di ko wasaaree ka pasar pasaree ka jënd ay nit jamono jooju ay étudiants ñi ngi nekk fii seen njàng di waaj a jeex ñu war leen a jox seen ndimbal ak seen bourse mënuñ caa jot jamono ji nga xam ne laay wadda ki gaayam ñi ngi jël xaalis boobu di ko pasar pasaree ay doomu sénégalais yu nekk kaso ñu waraloon atte ci wàllu cour d'assises ca Ziguinchor ak Ndakaaru ñi ngi doon toog di xaar ndax rek fanweeri million moo waroon a tax ñu mën leen a atte xaalis amul ci réew mi ñu ne te PDS a ngi ne jël xaalis bu ñu toll di ko wis ca VDN ba Ablaye Wade ki gaayam tam jamono ji ñuy yàqee xaalis boobu ci dëkk dëkkuwaay yi nga xam ni mbënd dafay faral di am gisuguñ fa benn dogal bu tax ñuy wax bu nguur gi jël ngir ña fa dëkk bañ dundaat loraange gi nga xam ni juróom-ñaari at a ngi nii ñu koy dund ci mën mi te gisuñ saafara boobaak léegi beneen fànn bi tax meetingu PDS bi doon jéye ak musiba ci dund askan wi mooy doomi Sénégal yi ñu jël dugal ci ay kaari njaga njaay ñu jóge fu ne ci réew mi ngir feesal boobu leen waaye nag ñi nga xam ni ñoom lañ dugal ci kaar yooyu jox leen xaalis bu leen kenn mere ndax ñu bëri ñuñ jugal ci kaari Njaga Njaay jox leen xaalis ñàkk pexe moo leen tax dem ndax ñu bëri ci ñoom seen loxo yotul seen ginnaaw ab Ablaye Wade ak gaayam nag profité ci seen ndóol googu tàllal leen i ñu dem ca te ku ne xam na ne gor day goor ci dara ñu bëri ñi feesal miitangu PDS bi keroog samedi ñi ngi jóge ci banlieue bi dañoo ñëw ndax am mu dépense ñeneen ñi ñi ngi jóge ci àll bi ndax sàq yi fi mu toll nii amatul pépp te kenn xamut lu nawet bi di joxe kon ña nekkoon tamit mu PDS bi ay sénégalais yu ndóol yoo xam ne la nguur gi daal profité ci seen ndóol googu ngir diri leen indi leen foofa di ndóol goo xam ni nguur gi ci boppam moo leen ko teg ndax yorin wu bon wi ñu yoree réew mi kon xam nga ni ku am problème mu ndékki mbaa añ bu la waa PDS ñëwee tàllal xaalis bu weex tàll boo ko jëlul it dina jaxase sa xel waaye nag attention li Ablaye Wade ki gaayam xamul mooy ni gaa olof dani ku sa sànqal ëmb sa kersa waaye ci wàllu wote léegi Sénégal koo jox sànqal ngir jënd ko dana ëmb sànqal sa de waaye du ëmbaale kerse gi dalay ñàkkee kersa kay ca biir mbañ gàcce ga ca bisu wote wa Babacar Fall ñu koy jaajëfal yegg sa yéen ci wàllu koom-koom la marché ak soxna Mantouré Niang. dal nag ak jàmm koor gi mu mel ni benn ayubés moo des faw ñu dalal ko moo tax it faw ñu dem nduggi te fi mu toll nii njëkk yi yokkagul Aminata daanaka boo amee fukki junni mën nga def sa ndugg weeru koor waaye nag li ngay soxla rek ngay mën a am bu ñu tàmbalee ci tàndarma fi mu ne kilo bi mi ngi jaax 1000 francs saaku ceebu mbay bi ak bi ñu importé ñi ngi jaax diggante 16000 francs ak 17500 kilo ceeb nag boo ko bëggee di nga joxe lu toll ci 350 wala 750 francs lu jëm ci meew mi consommateur yi daañu jëndee kilo bi 3000 francs CFA café bi nag pour grand modèle bi 3000 francs lay jaar ci ñenn ci boutique yi ña ca des bi ko jaayee 3600 bu ngeen bëggee jënd café Touba kilo bi it ngi jaar 1000 francs ñi nga xam ne ñoo xaw a néew doole nag mën nañoo wut li nga xam ni moo di kenkeliba ndax mbuus mi ñaar fukk lay jaar paquetu suukar mi ngi jaar diggante 650 ak 700 francs pomme de terre bi kilogramme bi fi mu ne 450 francs lay jaar soble bi 350 laaj bi bu weesoo mbuusu 25 bi mbuusu juróomi dërëm bi kilogramme bi ñu ngi koy jaayee 2500 jàpp 3000 francs poobar nag mu mel ni moo gën a cher ndaxte 4000 lay jax kilo bi litre dëwlin fi mu ne 1200 francs lañ koy wecci koo lu jëm ci boîte conserve petit pois yi haricots blancs yi il faut que nga am 1000 francs spaghetti 250 francs lay jax bu dee petit modèle bi bu mag bi mi ngi jax téeméer. donte ne yokkagul waaye ñu nemmeeku ne seer na ba tey te sax fii dañoo tàmm saay bu xew-xew amee njëkk yi yokk lu ci mel ni sax weeru koor gi waaye day njiit yi nekk commerce intérieur lank carré na nu ba tëdd ci suuf. ñoom nee nañ bi yoon moom na xel yi dal yokkutu am ndax kat jël nañ ay décision yi nga xam ne ni ñu ko doxalee kenn du sañ a yokk Saïdou Nourou Ba. ministère bu commerce daal jël ay matuwaay njëkkee ko ci El Hadj Alioune Diouf directeur bu commerce intérieur mi nga xam daal dafa gis ne kenn warul nangu ñuy wax ne njëg yi dafa daal di yokku ngir moytu ni nu mel autorité yëngu ci wàllu commerce yeesalaat arrêté boobu jëm ci blocage yu njëg yi ministère bi fi mu ne sax mu ngay amal ay suivi jëm ci évolution stock yi nga xam ne dafay daal di fexe ba commerçant yi bañ a wax saa su ne stock yooyu mooy waral ba ñu yokku njëg yi saa su leen neexee ak ni mu leen neexee dogal bu mujj jëm ci wàllu campagne de publicité ci wàllu njëg yi dina am lu yàggul dara ministère bu commerce dal di wax ne dina def lépp ba benn yokkute du am jëm ci njëg yi. muro bi nag fu mu tollu foofu itam Pape Amadou Guèye di njiit association des boulangers du Sénégal di dalal xel yi te ñu bañ a fàtte ne njëgu mburu gi état bi daf ko tënk ba tax na bu ko naree changé foofu mu génnee décret te tollooguñu foofu fi mu toll nii la mu doon jar ci weeru koor gi sa lay jar ba tey. njëgu mburu dafa nekk xam ni euh, homologué euh, koy décider am lu xew daal ñu mën a ko toog waxtaan bu mën a décider te ñun boulanger yi ay responsable lañ a xam ne euh, weer bu ñu jël weer am solo la ñu ràññee la donc euh, yaakaaruma ni daal maanaam xew bu mën a yokk ay mbir yooyu a am daal waaye li li ñuy ragal li am solo rek mooy état moo am responsabilité boobu su dee dara xewul ci ligne bi maanaam ñu yokk farine donc yaakaar naa ne dara du mën a am daal mais ñun boulanger yi jël nañu suñu yoo xam ne responsabilité pour rassurer population bi que ni fekk mbir maa ngi doyee def yaakaar naa ni peut-être mbir mën a am jàmm daal. balaa ñëw tëj xibaar yi ci wàllu koom-koom ñu fàttali rek bésub ñaar fukki fanak ñett ci weeru sulet actualité oblige faw ñu wax ci xëy na bés boobule politiciens yi ñoom ñoo aye woon ba tax na côté bii mbaa côté bële ku ne jël nga kàddu wax waaye itam ñu bañ a fàtte jaaykat yi ndax ñoom kontaanoon nañu ba dee Daouda Diouf suñu reporter bi nekkoon ci VDN bi moom mu ñuy xamal ne daanaka dafa bugg dafa dugg benn boutique doon jënd ndox xam naa nag ak naaj bi maroon na loolu waaye jaaykat bi tontu ko ne lépp jeex na du bonbon du ndox du sandis du gâteau du dara lépp militant yi jënd nañ ko Saydou Nourou Ba tamit bi nekkoon ca place de l'obélisque moom dëggal lu ni mel booram itam lépp luy lekk rek ñane woon foofu jënd nañu ko ba tax na jaaykat yi ñoom dañoo ñibbi seen poos fees dell ndax kat dese wuñu woon dara. taaru njaganjaay yi itam samedi bi dañu leen a loué ba nu sonn Salif sunu reporter diñ ci xamal lu bëri. ci garage Sicap bu nekkee ci buntu Pikine ña ngay waxtaanee ba léegi meetingu 23 juillet bi weesu te waa PDS organisé ko woon ñoom seen affaire di chauffeur yi da cee doxoon bu baax a baax buuba kenn sa ñoom. def nañu xaalis ren vingt mille ñii mille vingt cinq mille ça dépend ci distance yi rek ñu jóge géej waaye nañu fay vingt cinq mille. nañu fay ay 23000 fay nañ la moom distance yooyu moom 10000 lañ doon yeneen dawalkatu Ndiaga Ndiaye dañoo profité ci mbir mi am déet Abdoulaye amoon naa ñaari lois yoo xam ne am sa liggéey na chauffeur yoo xamante ni nag sa ñoom benn location képp lañ jël dañ cee profité ngir noppaliku waale mu doon ñaari bénéfice Cheikh Thiaré quatre heures laa dem daal 4 heures 5 heures 6 heures boo demee da ngay toog doo def dara da ngay toog waaw waaw damay toog noppaluwaale. juróom benn jàpp juróom-ñaari weer des ci élection yi mbirum transporteur yi tàmbali dox bu baax a baax. bu ñu ko dañoon kay sax sur muy am. <laughs> chauffeur Ndiaga moom jamono ji waxatuñu dara. yeneen i xibaar ci wàllu koom-koom ba talaata bii di ñëw ñu. bu soobee yàlla. RFM. niki yéen i kaay yi. Master Office. bi ngeen taamu si seen mobilier ak matériel de bureau informatique salon